alhamdulilah uh, comme ni ma ko waxee woon rek tey ñu ngi fi am al imam Muntaha uh, Mouhamed Muntaha Sakho muy fas yéene waxtaanal ci maqaama moom nga xam ne Cheikh Tidiane Chérif jot na ko ba mu ko jotee ah, du ma egg ci loolu ñu bàyyi ko rek moom dina développe waxtaan bi amal ñu nee ñu ñu dégg ak topp kan mooy Cheikh na Tidiane ak xat ya mooy lan ak kañ la ko jot al imaam euh, ñu ngi la unmuted euh, di la ñaanal yàlla tawfiix ak képp koo xam ne rek yaa ngi déglu imaam salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah yaa imaam ah, alhamdulilah comme ni nga ko waxee woon rek Euh, waxtaan bi tey waxtaan bu neex lay doon. Mhm. Euh, ñu xam ne ñu waxtaanee ku am solo la. Mhm. Euh, borom may la waaye maqaama moomu mu jot muy katmiya. Mhm. te nit ñi di ko waxtaanee waxtu bu ne te xamuñ mooy lan. bëgg nañ nga laajal ci biir laajal ci biir ñu xam lan mooy katmiya ak kañ la ko Seexu Tijaan jot. The recording has started. Bismillahi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim alxaaji manda maa ngi la eh, nuyo nuyu wala maa ngi la delloo nuyo yaag ñi nga xam ne yéen a bokk panel bi muy mbooloo mu tedd muy ngay nekkal foofule ca Raleigh North Carolina ak fu mbokk nekk rek moo xam Afrique la wala Amérique la wala beneen continent te bokk ak ñun jotaay bu tedd bi ñuy waxtaanee kenn ci waliyu yàlla yi te fu ñuy waxtaanee waliyu yàlla rek yërmande yàlla dafay wàcc wa inda dikri saalixiina tatanazalu rahamaatu fu ñu tuddee nitu yàlla yërmande yàlla dafa wàcc rawatina nag bu ñu tuddee waliyu yàlla bi nga xam ne moo gën a mëkk gën a mët ci waliyu yàlla balaa ñoo yegg ci mayu Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu donte ay mayam kenn mënu leen a xam ñu jëf présentation bu gàtt ci kan mooy Mawlaya Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu Sidi Ahmed Tidiane digganteem ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki baay ak ñeenta ngi ci maanaam sëtu yonantu la sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wàllu ndeyam woote nañu ak sharaf wàllu baayam woote ak sharaf askanoo ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam wante mosu caa sukkandiku moom cheikh ba bi muy gis yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama gis na ko ay yoon dem na ba dootul tàqalikook moom ndax maxaamaam moo ca àgg waaye benn ci jotaay yi muy am ak yonantu laaj na ci laaj na yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ndax sharaf gi ñuy woote ci seen askan dëgg la yonantu sallallahu alayhi wa sallam confirmeel ko wàllu baayam gi won ko ne ko sax yow xasan ibn ali mooy sa maam ci moom nga jaaree ba si ci man may leen ma benn seconde ma fay micro bi alhamdulilah ngeen baal ma <clears throat> Sidi Ahmed Tijaani radiallahu taala anhu bu doon sharaf tiini rek la am ñooñ àdduna lay puugarahante woog doonte sharaf tiini bu jëmee ci yonantu sallallahu alayhi sharaf jotu ko yemu ca ni mu teddee juddu noonu la tëddee ci xam noonu la tëddee ci jikko moom la suñu maam bu baax ba sidi alqaadi ma jaxate kala di wax ne xawa sharafa tini xaytu intisaabuhu li fatimata zahraai binti muhammadi maa sharafi alcilmiyi min xaytu kashfuhu an ilgaamidaati alxujbi fi kulli maqsadi ila sharafi diiniyi xaytu tariquhu طريق الدمان الهاشمي طريق الدمان الهاشمي المؤيد mu ngi tudd Ahmed baayam tudd Muhammad waaye ca fa mu juddoo Mahamad la ñuy wax maamam tudd Makhtar radiallahu tabaraka wa taala anhu yaayam di ndey Aïchatu Tijaan ibnu Baaba nee na gannaaw yonent yi ak saxaaba yi amul benn jigéen bu jur li ndey aïchatu kii yaay sidi ahmad tijaani radiallahu anhu jur maa anjabat xawdun min alxawaani fi kulli ma mada min al azmaani ka mithli ummi cheikhina tijaani radiallahu tabaraka wa taala anhu sidi ahmad tijaani sosu ci ñaari wayjur yu baax yu mag yu mag yooyu yàlla def mu judd rek juddu ci ëttub jàng ak ëttub xam moo tax bi muy am juróom-ñaari at moom Sidi Ahmad Tijaani radiyallaahu anhu goreel na alquran mokkal ko at mim juddu nag mooy mille cent cinquante gannaaw gàddaay yonantu bi sallallaahu alayhi wa sallam eleven fifty after loolu nag boo koy xool ci atu milaadiya mooy juddu yonantu yàlla Isa mooy mille sept cent trente sept 37 bi mu amee juróom-ñaari at muy 1157 di 1744 ci la mokkal alquran moom sayidi ahmed tijani radiallahu tabaraka wa taala anhu ki ko mu ngi tudd sayidi mohammed bin hamu gannaaw ga mu jàng tamit ci cheikham sidi isa bu akas almadawi gannaaw bu mu mokkalee alxuraan jàng la ñuy jàng ci xam-xam ba bi muy am ak fukki at ak juróom moom Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu di 1165 tombeeg 1751 ci atum jant mi boo jëlee juddug nde yonentu yàlla Isa foofu la Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu tàmbalee di def ifta fukki at ak juróom rek la am di mën a ubbee ni nga xamee ne Euh, boroom xam-xam yi goreel téere yi noonu lañ ko daan defee radiallahu tabaraka wa taala anhu baayam ak yaayam nag saxal teel koo wutal soxna ngir fegu gi nga xam ne daf ko judduwaale ñu protégel ko ko at ma topp fekk mi ngi am fukki at ak juróom moom Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu ci la ñaari way juram yu tedd yooyu wuyu ji seen borom boobu mi ngi am fukki at ak juróom-benn moom Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu loolu 1166 la bu dee ci li ñuy tuddee atum tubaab nga ne 1752 am mbas mu fa amoon ca lañu faatoo Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu nekkoon koo xam ne nag mbiram lépp moom jaamu yàlla la waaye léeg-léeg du ni nga mel ku mel noonu la la yàlla boole soxnaam baax na lool waaye mbirum àdduna moo ko gënoon a yitteel ci ni ko Mawlana Tijaani radiyallaahu anhu nettalee mu xam ne kii dafay yéexal say room ñu tàqalikoo tàqalikoo bu rafet te booba moom pareegul ci boppam am na ñaar fukki at benn mu laxas nag ni dafay yaatalum njàngam seeti it nitu yàlla yi nga xam ne yemul rek ci lim mokkal ci ndey téere yi nga xam ne tey muy Buxaari ak Muslim ak yooyu ñuy tiitaroo yooyu Cheikh Tidiane waxuma daf leen a teel a jàng waaye daf leen a teel a mokkal radiallahu tabaraka wa taala anhu waaye nag ba mu jógee fekk ñaar fukki at ak benn la am c'était en 1171 atum 1757 ci atum ci gannaaw juddu yontu yàlla Isa ci la dem Faas ci université bu mag boobu di jaami al Qarawiyyin nga xam ne tey boo toogee fa ñu denc Sidi Ahmed Tidiane bu dara ci tabax amutoon da nga koy seen jege lool foofu la njëkk a dem ngir wut xam-xam ak ngir dajeek ñooñ yàlla moom Sidi Ahmed Tidiane radiallahu tabaraka wa taala anhu wax nañ ne bokk na ci ñim njëkk a dajeel ci tukkeem moomu Seydi Tayib ibn Mohammed al yamlah ibn al yamlahi al alami ca dëkk ba ñuy wax wazan booba mu nga ca tariqa boobule moom Sidi euh, Tayib euh, nekk koo xam ne ku yiw la ku mage la ci yàlla dégg nga sana sax wirdaam wi Sidi Ahmed Tidiane waaye Sidi Ahmed Tidiane jëlul wirda wa mu dajeeg beneen nitu yàlla moom Sidi Ahmed Tidiane Sidi Mouhamed ibn al-Hasan al-Wanjali moom moo ko waxoon ne ko yow de da nga jot maqaamam Chadali maanaam boo déggee Sidi Ahmed Tidiane bul jàpp ne rek dafa xëy rek yëpp sotti donte balaa moo ñëw doona lim do fi doomu soxna yëpp jaar dafa jaar ci coono ak ci taseeg ñooñ yàlla ndax loolu la yàlla di defee moom affaire am radiallahu subhanahu wa taala daje na ak aussi Seydi Abdullah ibn Muhammad al Arabi al góor ga ibn Abdullah maan al Andalusi bokkoon ci aila abdulawiya almaaniya ña nekkoon ca Faas moo ko moo ko ñaanaloon ne ko yàlla na yàlla jàpp ci sa loxo ba muy ñetti yoon gannaaw ga na Sidi Ahmad Tidiane radiallahu anhu dem naat na ca al baladul abyad wala baladul abyad ca wàllu saxraa ba ca zaawiya góoru yàlla gu siiw ga Abdul Qadir ibnu Muhammad al abyad nekk moom Cheikh Tidiane di jàng ka jàngale ba njëlbéenu atum junne ak téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn bu ci ati juddu yonent yàlla isa alayhi salaam mooy mille sept cent soixante sept seventeen sixty seven Tijaani radiallahu anhu dégg nga foofa ku nekk daf ko fa daan ñëwal bëgg koo def sëriñ ndax nee ñu kaala bu njëkkee ci dox dafay wàcc du jëriñ ci ndigg la war njëkk mu Seydi Ahmed Tijaani ànd ak li yàlla may yépp nag taxut mu nangoo woote xam nga danañ la wax gisam yonantu ca uh, kanam waaye jamono ji fekk na moom sax daje na ak yonantu sallallahu alayhi wa sallam bés la ko fekk rek mu toog moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam daal di ko woo Sidi Ahmed Tidiane nee na yonantu daal di ko téye mu jóg mu jël loxol càmmiñam bi dóor ko ci dënnam bi moom Sidi Ahmed Tidiane ne ko waxal am nga ndigal waaye booba ndigal gi muy xaar du googa jublu kon moom nga dégg góor yàlla gën naan summa nuudiya min hadratul qudsi waaw yaa ahmadu nangam ak nangam génnal nga jëriñ nit ñi radiallahu tabaraka wa anhu Sidi Ahmed Tidiane bu délégation yi ñëwaan foofu di ko ziyaara ak barkelu daf leen daf leen daan daw ak di leen wax ne déedéet maag ñëpp a yem man sama bopp laa moo ma saxal moo ma soxal moo ma soxal foofu nag moom Sidi Ahmed Tidiane radiallahu tabaraka wa taala anhu la joge maanaa dem war a waaj nag pour dem makka maanaam ba mu jógee ci eh, faas dellu ca saxraa ba nga xam ne mooy wàllu dëkkam ak xasru bii ma tuddal leen mooy xasru sidi abdul qadir mohamad ibnul abyad nekk fa juróomi at nit ñi di ko fa eh, fekk foofu la jógee dem tilimsaan dégg nga pour continuer war a dem aji moom sidi ahmad tijaani radiallahu tabaraka wa taala mi ngi war a jóge foofu nag pour aji atum junne ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn muy 1772 1772 ci la cheikh di jóge Tilimsaan jëm ne dafay aji waaye nag am na ay dëkk yu muy jaar ndax dana jaar ci azawawiya foofu lay déggee Sidi Muhammad ibn Abdurrahman al Azhari ziyaare ko jël ci moom tariqa alxalwatiya xam ngeen ne cheikh balaa moo jàpp tariqa bi yonentu jox ko sallallahu alayhi wa jaar na ci ay tariqa bi ci gën a siiw mooy tariqa alxalwatiya bii nga xam ne sidi abdurahman sidi muhammad ibn abdurahman moo ko koy jox te dana ci amee ijaaza ca kanam moom sidi ahmed atijaani radiallahu tabaraka wa taala moom ba mu yeggee ci yoonam wi tunus dégg nga def na fa at at mooma daje na fa ak awliya ku mel ni Seydi Abdou Samad nekk na fa di jàngale diggante Tunis capital ak dëkk bu ñuy wax Suusa gis nga cheikh capital yi gën a mag ci lislaam ci jamono jooja xam nga jaamia al Qarawiyyin bokk na ci université yi njëkk a tabax ci àdduna te jigéen ko tabax Fatima al Fihriya naka noonu jaamia bii nga xam ne mooy jaamiatu Tunis nga xam ne wax nañ ne moo gën a yàgg ci université yi Cheikh nekk fa dégg nga di gëstuwante ak borom xam-xam yi fa jàngale bokk na ci teer yi mu fa daan jàngale alxikamul ataiya bi mu wax ne su fekkoon ne mën nañoo jullee leneen alxuraan kon danañ ko mën a jullee waaye xam-xam bu bëri ba siw ba buuru dëkk ba jot ci daal di wax Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ne ko dama laa bëgg jox université bi jox la jàng bi jox la kër jox la salaire nangam ak nangam pour nga toog waaye Sidi Ahmed Tidiane loolu taxu ko woon a jóg mu jotee lettre ba ca la préparé ca suba ga mu daal di jël géej gi jàll Misra boobu ñu daan aji foofu la ñuy jaar suñ mag ñu bëri sax fa lañ jaar ba mu yeggee Misra alqahira fa dajeeg sëriñ bu mag ba di Sidi Mahmoudul Kurdi alxalwati al misri dégg nga daaran al iraqi aslan wa min sha'an daf ko gis rek ne ko yow de ku yàlla bëgg nga ci àdduna ak alaxira Sidi Ahmada Tidiane ne ko noo xamee loolu mu ne ko sama borom moo ma ko xamal Cheikh Tidiane wax ko gént gum géntoon ci moom fekk ma nga Tuunus ci soppi gu muy soppi ki xamul yàlla xamal ko yàlla mu ne ko noonu la demee ba mu ko gis naa nga ne yow da ngay soppi përëm gi def ko muy wurus mu ne noonu la demee moom Sidi Ahmad Tidiane yi foofu la jógee nag ci Misra war a continuer ak diyaarul muqaddasa pour aji def farataam ba mu yeggee màkka ci weeru sawal atum junne dégg nga ak téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci hijra yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu tombeek 1773 wala ci làkkub tubaab mu dégg nag sëriñ bu mag bu fa nekk bu ñu abul abbas ahmad ibn abdullah al hindi waaye góor ga cëram li muy rëy rëy ci yàlla amutoon euh, daj dégg ndigal ci dajeeg mbindeef yi mu ngi mel ni waliyu ba nga xam ne moom la doon jokkawanteeg ca tuunu sit noonu waaye ànd ak loolu yëpp Cheikh na Tidiane yi moo war a doon mbóotam radiallahu taala mu xamal ko ne ko sax man ci weeru tabaski wii di ñëw ci laa war a gaañu ñaar fukki fan dénk naa la nag njaboot gi ba mu ajee moom si Ahmad Tidiane radiallahu anhu ba noppi ci la décidé nag dem madinatul munawara ziyaare ji maamam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi dajeeg nag xutbu ba nga xam ne moo yore woon jamono ca jamono jooja mu sidi Mouhamed ibn Abdul Karim Assamaan sidi Mouhamed ibn Abdul Karim Assamaan bi nga xam ne e, sëriñ bii ci Makka wax na ko ne ko doo dajeeg man waaye da nga dajeeg moom. wax na ni sidi Mouhamed ibn Abdul Karim Assamaan gannaaw bu mu faatoo sëriñu Cheikh tijan ba ca Qahira muy sidi Mahmoudul Kurdi moo yore xutbaan yutu Cheikh Tidiane radiyallaahu anhu da nga gis ne tariqaam du tàmbali mukk. feeg sëriñam boobu mu ngi dund ba sëriñam bi ga gaañoo ci la xutbaaneetu gi tuxu ci moom ci la amee alfatxul akbar ci ñu ne foofu la amee xutbaaneetu su fekkee ne xutbaaneetu la wala xutbaaneetul uzma ndax am na ñuy tuddi xutbaaneetul uzma gi ca weeru muharram ci bu ñuy waxtaane xatmiya gi bi ci kanam tuuti incha allah Cheikh na na ajam ziyaare na yonantu sallallahu alayhi ak Seydi Mouhamed Ibn Abdul Karim war a delluwaat na Qaahira ngir ñibbi waaye ngir tasewaat ak sëriñam ba nga xam ne moo ko warlu loon ne ko sama borom dana la may nga dem ci jàmm ñibbi si ci jàmm muy Sidi Mahmoudul Kurdi ba mu ñëwee sax nag balaa ñoo tàqalikoo def na ko na ko ijaaza ci xalwatiya Sidi Ahmed Tidiane bañ waaye mu insisté xam ne yeeyoo na ko radiallahu tabaraka wa taala anhuma ba mu ñibbee nag jaar misra yoonam woowu sëriñ bi no seulement daf ko yaatal ne ko bés bu set nang ma ñëwal mu koy def mu jigi dajee yañ daan dajee dégg nga borom xam-xam yi di ñëw luñ laaj rek Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu tontu nga gis ne kon moom Sidi Ahmed Tidiane dem na ba xam-xam dégg nga fi mu ñoree ci aalamul islam bi yëpp seedeel nañ ko mooy kan fas ga mu demoon ba dégg nga am fa ijaza ilmiya fa la tariqaam di mujj ñëpp nangul ko mooy xaraw yin dégg nga Tunis nga xam ne wax nañ ne mooy université bu njëkk ci àdduna nangul nañ ko ba nakk ko jox waaye tey mi ngi nii borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk Azhar ak la ko wër ñoom ñëpp di ko ñëwal ci Misra di Égypte ba ñëpp nangul ko ndax buñ koy laaj buy tontu fay mel ni dañ ko tegal lawxul mahfuz moom Sidi Ahmed Tijaani radiallahu anhu gannaaw ga nag la ñibbi la joge foofu jëm Tunis waaye yàggut fa mu jógee Tunis continuer Tilimsaan loolu mi ngi nekkoon atum junne ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett gannaaw gàddaay yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tombeek 1774 muy 1774 gannaaw juddu yonent yàlla Isa alayhi salaam ñetti at la def tilimsaan dégg nga ca atum junne ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci la Sidi Ahmed Tidiane demaat demuk ñaareel nag ci Faas mu tombeek 1777 1777 dégg nga pour euh, ziyaare Seydi Moulay Idris al Azhar ma nga xam ne fañ ko denc ca wetu xaraw yéen so réewul ak tey fañ denc Mawlana Cheikh nga xam ne moom mooy cosaanu nguuruk mar Maghrib ndax fas boobu moo doon capital bi mooy maami buur yi fi nekk nii nga xam ne ñoom ñëpp tey ñu ngi aju ci euh, dégg nga tariqa Moulay Sidi Ahmed Tijaani radiyallahu anu bi nga xam ne tey lu mat ñeenti téeméeri million ci jullit yi mooy boo xaajoon tey jullit yi juróomi xaaj mbaa ñeenti xaaj benn xaaj ba ñoom ñëpp ay taalibe Mawlaay Sidi Ahmed Tijaani lañ radiallahu tabaraka wa taala anhu dégg nga ci yoonam wii nag ci la dajeek bindkatam bu mag ba Seydi Mouhamed ibn al-Mishri al-Hasani daal di ko def sax af ilimaan muy koy jiite mook ay ñoñam dégg nga lu bari ci ay lettre yu muy bind moom la koy binduloo loolu nag mooy continuer ba mille deux cent huit ci gàddaay yonentu sallallahu alayhi wa mooy atum junne ak ñaar ak juróom-ñett tombeek mille sept cent quatre-vingt-quatorze seventeen ninety four mooy at mi nga xam ne ci la Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nag war a tàmbali di méngoo imaamatu gi kenn sañatu koo jiite dégg nga de radiyallahu tabaraka wa taala anu ngir mbir moo xam ne moom xam na ko yonentu xam na ko yoon woowa ca madinatu wajda fekk ma nga jublu faas ci la dajeeg beneen taalibe bi muy Sidi Harazi mi nga xam ne moo war a bindi Jawahir dégg nga ñoom ñii ñëpp nag seex jox na leen xalwatiya waaye nanguwutoon ak toog ak ñoom ndax ndigal li dikkagut daf leen wax ne nañ dem nekk ci liñ war a nekk ba ndigal li eh, dikk ba ñu demee faas ba ziyaara dégg nga mu daal di jógee foofu nag moom Sidi Ahmada Tijaani radiallahu anhu dégg nga dellu tilimsaan waaye ca eh, at mooma nga xam ne la dellu tilmisaan moom Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu sax ab diir la la jógee nag dellu jëm fële ca xasru Chalala ak abi samxun fa nga xam ne fa la njëkkee woon ba mu njëkkee dem Faas bay dellu fa la nekkoon ay at juróomi at yooyu fa la delluwaat ndax Sidi Ahmed Tidiane yàlla daf ko mayoon kabool ba nga xam ne fu ne nit ñi duñu am jàmm ci moom nit ñi am sago ci moom mu dem nag nekk foofa di fa jàngal ñamu nekkal ñu ci ci taalibe yu tuuti waaye di def xalwaam gu mag googu nga xam ne ca biir xalwa ba ca la fatxu gu rëy gi nga xam ne dana jëriñ àdduna ak di feeñee ndax Cheikh Tidiane kat ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ruuxam la yàlla njëkk a bind waaye yéexal ak feeñam ci jëmmu dégg nga nëbb ko lu mat ñeent fukki at mu soog koo wax kan mooy mu wax ko moom mooy kan noonu le Cheikh na Tidiane radiyallahu anhu nekkee di jëmmi wilaayatu yàlla nëbbu ko ba mu amee ñeent fukki at ak juróom-benn ci la koy soog a feeñalal moom mooy kan mooy ouverture gu mag ga kon da ngay xam ne euh, wuti gi sant la woon ak jaar fi ñëpp di jaar waaye ak nëbbu ba feeñ jot nga soog a feeñ foofu nag moom Sidi Ahmed de la anhu ci at moom nga xam ne la fa dem muy mille cent quatre-vingt-seize ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn gannaaw gàddaay yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu tombeek 1781 1781 foofu la ko moolaaye si sayidna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa di feeñoo ci néegu xalwaam boobu nga xam ne amul fa woon benn wéttal ku dul yàlla ko yonentam ak taalibeem bi nga xam ne ma nga ca ruqu muy saydi muhammad ibn al arabi ad damrawi moo tax buñ la laajee kan moo njëkk a jël tariqa Cheikh Tidiane gannaaw bu ca Cheikh Tidiane jotee waxal ne mooy Sidi Mouhamed ibn Arabi ad-Damrawi radiyallahu tabaraka wa taala anhu foofa cheikh bu jàngalewaan ba noppi falay lay am na buum gum takk ca kaw euh, néeg ba waddal ko ci suuf mu to mu daal di ko rof ci baatam nga xam ne suy zikar ba bëgg a nelaw buum gi bépp ko gis ngeen mbokk yi am na loo xam ne ku koy wut fokk rek nga nangoo sonn fokk rek nga nangoo góorgóorlu Sidi Ahmed Tidiane yi nekk di sëtëb yonant dajale mbooleem xeeti xam-xam yi mënoon toog ñu koy defan lu nekk waaye muy sonn di liggéey di jàng di jàngale ànd ak jaamu yàlla go intense goo xam ne kenn attanu ko ku dut moom gannaaw yonantu sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen yonantu yeeg saxaaba alkiram ridwanullahi taala alayhim foofu la ko yonantu feeñoo nag daal di ne ko nag tey fee génn jot na bokk li ko yonantu garantir mooy képp ko ànd ak moom rek sama borom tabaraka wa taala dana ko boole ci way texe yi loolu nag mbokk yi yéemewut tawfiq la ndax tariqa bi kat istighfar la muy sangu ba set ci bàkkaar salaatu ala nabi sol mbub moo xam ne yaa ngi julli ci yonantu sallallahu alayhi wa mu muy mbubam leeru yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga dugg ci xadrab yàlla bi laa ilaha illa yooyu képp ku muy sa yitte ala fokk nga dem aljanna ndax astaghfirullah ku ca sax yàlla baal la tukum baal nga dem aljanna salaatu ala nabi amul kenn kuy jaamu yàlla jaamu gu toll ni salaatu ala nabi jaamu yëpp mën nañ leen a rejeté wala ñu nangu leen jaamu yëpp mën nañ leen a fayee keneen ba mu des salaatu ala nabi kenn du ko rejeté kenn du ko fayee keneen laa ilaha illa laa nag mooy tataak yàlla gi nga xam ne ku ci dugg ñoŋ te ku dugg ci tataak yàlla ñoŋ nga te ku nga ah safara moom mucc nga ci yooyu kat ñoo composé tariqa Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu yonentu a jox ba ci dégg nga atum eh, mille deux cent ma mu motalil ko laa ilaha illallah am na ñu ne sax ca la amee qutbaniyatu uzma gi am nañu wax leneen foofu daal ci gàttal fa la yonentu sallallahu alayhi wa sallam feeñoo Mawlaay Ahmed Tidiane mu am quarante six ans quarante six ans nag mooy waliyu waaw dégg juróom dégg nga benn la laam fanweer la yaa fukk muy ñeen fukk ak juróom benn boo ko wàññee mooy wali mooy nekk na wali bu mat sëkk moom Sidi Ahmed Tidiane ci la ko yonente sallallahu alayhi wa sallam joxe eh, tariqa bi radiallahu tabaraka wa anhu mu sax fa nag moom Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu fukki at ak juróom-ñaar dégg nga xat-xat yu bari am fa ndax mbooloo mu bari ma booba atraque ñoo yilif foofa ñu daal di ko bundu xatal ba mu jot ndigal pour gàddaay ci la génn nag gàddaay dem faas bi mooy ñetteelu yoonu faasam wi yoonam wii nag ci lay dëkki faas moom sidi ahmad tijaani radiallahu tabaraka wa taala anhu yoonam woowu na nga xam ne ci lay génnee pour euh, dëkki faas fekk jot na euh, tariqa bi ci atum 1781 1781 muy 1196 dégg nga war a faa jógee nag dem faas pour dëkki fa ba incha allahu tabaraka wa taala war dajeeg boromam doom jëmam googu nga xam ne nag ca lay demee faas moom Sidi Ahmed Tidiane radiallahu tabaraka wa taala anhu gannaaw bu mu dajeeg yonentu sallallahu alayhi wa sallam dajee goo xam ne du dajeeg nelaw waaye dajeeg yaqata la gis ko mu di ko gis loolu nag waliyu liggéey na ba sonn amut ko rawatina nag façon bi ko dégg nga Sidi Ahmed Tidiane radiallahu tabaraka wa taala anhu moo tax eh, góor ga ne ko laa qaabaani min labanin muy xasida bu rafet boobu alhaji ibrahima eh, bindoon ci moom muy naala tijaani abul abbaasi ayaati qad faaza minha qutubun bil karamati radiallahu tabaraka wa taala anhu ca biir xasida nag ca la koy waxee tilka al makaarimu la qaabaani min labanin tilka al wirasat min ala al rumati sidi alhaji ibrahima ñas radiallahu anhu wax ko ci moolaay cheikh sidi ahmad tijaani radiallahu tabaraka wa taala anhu ba mu demee nag ca at mooma nga xam ne Euh, Sidi Moulay Souleymane nga xam ne moom moo doon borom faas jamono jooju ndax mooy sultaan bi mën ngaa wax ne mooy euh, buur bi ndax boobu sultaan lañ daan wax léegi nag ñuy wax Malik moom dalal na Sidi Ahmed Tidiane Cheikh Tidiane am fa jamono dégg nga euh, gisante ak moom xamante ak moom mu xam ci Cheikh Tidiane radiallahu anhu lim xam ci moom gis ci moom lim gis ci moom ba jël tariqa Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu dégg nga di ko wirde dégg nga waxuma la di ko wirde waaye dem na sax ba bëgg a gis yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama ci lu dut nelaw ba mu ko laajee Cheikh na Tidiane Cheikh na Tidiane yi wan na ko ne ko nekk attanoo ko ba mu insisté am na lu ko Cheikh Tidiane jox mu ne waaye bi leeru yonentu bi sallallahu alayhi wa duggee ci néeg bi rek ci la xëm ba mu yeewoo ji Sidi Ahmed Tidiane yi di ko dalal naan ko waxoon naa la attanoo ko mu ne wax nga dëgg attanuma ko kookoy Sidi Ahmad Tijaani radiallahu tabaraka wa taala anhu ba mu yeggee nag ca at mooma nga xam ne fala la euh, gisante ak buur bi buur bi nangul ko dégg nga topp ci kawam muy atum 1213 dégg nga junne ak ñaar téeméer ak fukk ak ñett dégg nga gannaaw gàddaay yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi abu samxuun ca bilaadu sahra fukki fan la ak juróom-ñaar ci rabiul awal waaye ma nga dugg euh, dégg nga faas fukki fan ak ñaar maanaam mu ngi dugg faas ci juróom benni fan ci rabiu thani maanaam weeru gàmmu la joge abu samxuun weeru rakki gàmmu la yegg fas moom seydi ahmad tijaani radiallahu tabaraka wa taala anhu loolu nag euh, moom Sidi Ahmed Tidiane radiallahu tabaraka wa taala anhu eh, ci diggante bi taalibeem bu mag boobu di Seydil Arabi Damraawi ndeysaan eh, faatu na fi Seydil Arabi Damraawi mu ngi faatu atum junne ak ñaar téeméer ak ñeent muy 1789 dégg nga stage mu nekk shahid ci aynu maadi ñu ngi ko denc ca wetu dégg nga fa nga xam ne mooy eh, ay way juru Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu 1797 nag muy atum junne ak ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ci gàddaay yonent bi tombeek 1797 ci la doomam ji di Sidi Mouhamadul Kabir juddu Sidi Ahmed Tidiane xam ngeen ne am na fukki doom waaye ñëpp dunduñu ñaar rek la fi bàyyi waaye duñ dugg loola loolu dafay guddal waxtaan wi atum 1213 nag tombeek 1798 fekk Sidi Ahmed Tidiane mi ngi am juróom benn fukki at ak ñett di ati yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ca la dem Faas dégg nga bañ ca tegee ñaari weer ci la Sidi Harazim dégg nga tàmbali euh, jawahirul maani bi dégg nga ñu dugg nag ci euh, at ma topp nga xam ne Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu am na juróom benn fukki at ak ñett ay weer ci la jot nag maqaama mi ñuy tuddee alxatmiya wala mooy almaqaama alqutbaniya al uthma alxatmiya nag danañ ko firi waaye kañ lañ ko jot lañuy la ñuy la ñuy njëkk a wax mi ngi ko jot ci fukki fan ak ñaar ci tamxarit dégg nga gannaaw gàddaay yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fukki fan ak ñaar ci tamxarit 1214 maanaam atum junne ak ñaar téeméer ak fukk ak ñeent gannaaw gàddaay yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wane ci karaama ju rëy nag ndax dafa laaj Sidi Harazim ne ko ndax yaa ngi jàpp mu ne ko waaw ñu ne mu ne ko jàppaatal mu jàppaat mu téye ci loxoom ne ko gëmmal mu gëm mu ñu dox jéego mu ne ko xoolal mu xool ndeke ña ngi ca jabalu arafa yonent yëpp ak aqtaab yëpp ña nga teew ci kanam yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa la ko yonent bi ràngalee xilaafatul uzma al qutbaniyatul uzma muy alxatmiyatu bañ ca tegee nag weer ak i fan muy weeru safar fukki fan ak juróom-ñett dégg nga yenn ci suñ bor kilifa yi nee nañ sax bésub altine la woon ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ràngal maqaama mii nga xam ne mooy alxatmiyatu mi nga xam ne moom la Seydi Mande Loum ak mbokk yi tedd yi nekk ci panel bi doon laaj bii xaala tàmbalee bii kaala tàmbalee xatmiyatu la jot ci fukk aar ci weeru tamxarit katmiyatu la jot ci fukki fan ak juróom ci weeru safar moo tax góor ga ne wa fil muharrami gada gawtan rachid xalifatan an il muhaymin il majid uctiya zaaka cheikhuna bi arafa ci defal tayyu dégg nga mu daal di fa dem muy karaama ci karamatu ma karaamaatu Mawlana Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu tabaraka wa taala anhu fekk booba yàlla war na ko nëbbu jaam ni ndax jël na maqaama donn na maamam yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ci at yi nga xam ne moom la yonentu sallallahu alayhi wa sallam dund ci zahir kon li des ci jamono yëpp kenn dootu ko xam ni ki nga xamee ne moom Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu kenn mosu koo xam 1214 di 1799 dégg nga ci juddu yonentu yàlla isa alayhi salaam ci la moom Sidi Ahmad Tijaani jot ñaari maqaama yii di maqaama alxatmiya ak maqaama alkatmiya dégg nga mille huit cent nag muy mille deux cent quinze ci gàddaay gi maanaam eighteen hundred ci juddu yonentu yàlla isa alayhi salaam ci lañ tàmbali tabax zawiya Sidi Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu ci la it ñaar doomam ji di Sidi Moulaay Mouhamadul Habib juddu nga xam ne tey koo gis ci sëtu Cheikh Tijaani moo la jur ndax moom Sidi Ahmed Tidiane ñaari doom la fi bàyyi Sidi Mouhamadul Kabir ak Sidi Mouhamadul Habib Sidi Mouhamadul Kabir benn doom bu jigéen la am benn doom bu jigéen ba doom bu jigéen la am kooku amul ay amul amuli doom kon ay sët ci yu jógee ci Sidi Mouhamadul Kabir amut Sidi Mouhamadul Habib nag am ñaari doom yu góor mu Sidi Bachir ak Sidi Ahmed Sidi Ahmed moom ngeen di gis photoom boobu bu rafet boobu ñu bëri foog ne Cheikh la waaye sëtam la mu Sidi Ahmed Ammar si ak dégg nga ñaari doom yu góor yooyu la fi Sidi Habib bàyyi ak fukki doom yu jigéen ak ñeent tey ku jógee ci Sidi Ahmed Tidiane ci ñooñ nga jógee radiallahu tabaraka wa taala anhu 1208 nag 1218 gannaaw gàddaay yonantu tombeeg 1803 fekk yéen Sidi Ahmed Tidiane nga am fukk benn fukki at ak dégg nga juróom-ñett ci la dajeeg taalibeem xalifaam bu mag boobu di Seydi uh, Rayaahi waaye moo tombe tamit at mi nga xam ne ci la Seydi Harazim radiallahu tabaraka wa taala anhu uh, di xalifaam bu mag boobu gannaaw bu mu taseeg si rayaax moom dem cee Makka ak Medina ca Badar gannaaw ba mu jàngee lam jàng foofu la faatoo ca Badar ca wetu Medinatu Munawara alayhi afdalu salaati wasalaam ak ya ca am yëpp 1224 nag maanaam gannaaw gàddaayu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam muy 1809 1809 gannaaw juddu yonent yàlla Isa fekk Sidi Ahmed Tidiane nga am 74 years of age ci la taalibeem bu mag boobu tamit Seydi almishri radiallahu tabaraka wa taala gaañu ca aynu maadi nga foofu nag euh, benn at nga cay teg muy mille deux cent maanaam ay at yu tuuti nga cay teg mille deux cent vingt quatre juróomi at mille deux cent vingt mooy juróomi at la kon ca la taalibeem bu mag bii nga xam ne tey ji képp kuy waxati ci tariqa bi yaa ngi sukkandikoo li gën a bëri ci téeréem bi nga xam ne ñàkk na maas lool muy bughyatul mustafid kan moo ko bind saydi dégg nga al arabi ibnu saaih saydi al arabi ibnu saaih nag mi ngi juddu 1229 gannaaw gàddaay yonent tombeek 1814 bi Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu amee 79 years of age 1230 nag tombeek 1815 euh, maanaam 1230 junne ak ñaar téeméer ak fanweer gannaaw gàddaay yonent di di di 1815 gannaaw juddu yonent yàlla isa alayhi salaam fekk sidi ahmad tijaani radiallahu anhu mi ngi am juróom-ñetti fukki at ci la tàqalikoo uh, adduna bii nag dellu ca malawul ala dajeeg boromam bu tedd bu kawe ba gannaaw buñ jullee suba ba sub alxemes ñaar fukki maanaam fan ak juróom-ñaar ci weeru shawal waaye nag maqaama mu mag mii nga xam ne moom la jot muy xat mi ak kat mi ci lu gàtt rek lañ koy waxtaanee ngir tëj jotaay bi ndax mel ni mi danañ wax mooy lan dégg nga ak dégg nga mm, ñan eh, lan lañ lan lañ ci mën a dégg ak lan lañ ci mën a jàppee waaye mel ni mi nag moom duñ ca wax dara ndax kenn da caa xamul dara radiallahu tabaraka wa taala anhu moom mi ko am sax dégg nga yonentu nee na ko maqaam mi maag sama borom rek ñoo ko xam maanaam Sidi eh, Muhammad al-Mishri ibn Abdullah al-Alawi mos nañ koo laaj lan mooy tàq lan mooy différence entre xatmiya ak katmiya mooy firi mottali katmu mooy firi nëbbu maanaam ni nga xamee ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo mottali yonantu yi dégg nga tëj ko naka noonu tamit wilaya gi nga xam ne wilaya bu spécifique la Cheikh Tidiane yi moo ko mottali moo ko tëj ni nga xamee ne yonantu sallallahu alayhi jot na ci nubuwatu maqaama moo xam ne kenn yeggut ci ci yonantu yi naka noonu tamit Sidi Ahmed Tidiane jot na ci wilaayatu maqaama moo xam ne kenn yeggut ca ci uh, waliyu yi moo tax bi ñu laajee Sidi uh, al-Mishri mu ne xatmiyatuhu moom Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mooy martabaam ci xatmiyatul wilaaya ci daayira sifa maanaam nekk gim nekk uh, aji wuutu yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci maqaama mii dégg ci daayiratu sifa moo xat maqaamam xatmiyatu ci la Mawlana Tijaani di tëbbee képp kuy waliyu maanaam xatmiyatu mën ngaa wax ne mooy loxo bi muy joxe moo tax maqaama mii ci lay junj moom Sidi Ahmed Tijaani naan sama ruux ak ruux yonantu bi sallallahu alayhi wasallam nii lañ mel mu jox wane ñaari baaraamam baaraam bi nga xam ne mooy baaraam digg bi ak baaraam bi wala fi di wax baaraam sànneekaay wala baaraam joxoñeekaay mu ne ruuxu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam mooy tëbb mooy dolli mooy jox dégg nga lan bi yaaw yi ak mursalin luñ am ci leer waaye sama ruux mooy tëbbu laqtaa bi ak aarifine kon kon xat xatmiyatoom mooy maqaamam mi nga xam ne ci la nekkee diggante yonantu yi dégg nga ak awliyaaw yi di leen jox maanaam fi nga xamee ne melow joxe wi nga xam ne mooy tëbbu awliyaaw yi xat xatmiyatum bi la mu ne kat xatmiyatum bi nag mooy martabaay al wilaaya al xaasa bihi min xaytu wilaayatuhu fi dairatil ism maxaama xatmiyatu ci daayiratu sifa la nekk muy daayira melow melow yi nga xam ne ci la wutu yonentu yonentu wuute ca yàlla waaye daayiratul ismi foofu la katmiyatu bi nekk muy daayira bi nga xam ne fa la wuutu yonentu sallallahu alayhi wa sallam yonentu wuutu ca wa fële yonentu melow la fa wuutu mu wuutu ko fa fii yonentu tur wi la fi wuutu mu wuutu ko fa moo tax fii la Sidi Ahmed Tidiane di wax ne yàlla jox nañu maqaamu moo xam ne mag na kawe na ba nga xam ne araam na sax ñu ko ñu koy tudd di ko siiwal mu ne loolu nag jotewul ak dara dara dara ci li ma leen mos wax yépp yàllaa ko bind maanaam daal boo bëggee taqale ñaari maqaama yi da ngay wax ne maqaama mu njëkk mi xat mi yëtoom bi ci lay tëbbee ci lay joxe leer ci lay tëbbee lawliyaaw yi ku ko yëgut ku ko yëgut wax na ne amul benn waliyu lu dul ci suñ géej gi lañ koy nàndale ci lay wëgge ay taalibeem amul benn waliyu lu dul ci suñ géej gi lay lay naanee waaye ci lay wëggee ay taalibeem martaba ñaareel mi nag ci lay jëlee maanaam bii mooy loxo bi muy joxee dégg nga bële mooy loxo ba muy jëlee loxo ba muy jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy xatmiyatu bi loxo ba muy joxee awliyaaw yi mooy xatmiyatu bi wala nga ne bu njëkk bi xatmiyatu bi mooy martabaam feeñum Sidi Ahmed Tidiane yi dégg nga xatmiyatu bi mooy martabaam biirëb Sidi Ahmed Tidiane yi liñ xam ci moom yëpp kat ci xatmiyatu gi la waaye xatmiyatu gi xamuñ ci dara wala nga ne liñ xam liñ liñ réeree sax xatmiyatu gi la waaye la ñu gën a réeree mooy xatmiyatu gi la moo tax Sidi Ahmad Tijaani di wax ne sama ñaari tànk yii mi ngi ci kaw joggare mi ci kaw baatu képp kuy waliyu yàlla da ko dolee ci aadama ba ba yàlla fol wal wal buft bi dégg nga loolu mooy lan mooy Sidi Ahmad Tijaani radiallahu anhu non seulement waliyu yëpp moo leen sut ci charia moo leen sut ci xaqiqa waaye ni nga waliyu yëpp tamit dégg nga moo leen sut ndax xatmiyatu moo leen sut ndax katmiyatu dégg nga xatmiyatu maqaama la moo xam ne mooy maqaama mi gën a jege mu gën a kawe ci wilaayatu nga xam ne boo ko rombee rek dugg ci nubuwatu moo tax wali yu bëri di ko daan ko wër di ko sàkku am ñoo xam ne yàlla wan na leen sax maqaama mi waaye xam nañ ne jotuñ ci am ñoo xam ne dem nañ sax ba foog ne jot nañ ci ku mel ni Mouhamadul Wafa doomam wooteel na ko ko ku mel ni Sidi Arabi al wut na ko ba am mashhad bu mu gis kaaba gi ñu koy tabax di def brique di teg orak xaalis ba mu des benn ñu wan ko ne ko dégg nga benn bi nga xam ne moo des yo yo mooy yow ñu mu foog ne mooy xatmul wilaayati ba mu woote ko waaye am ñu woo ko ci xadarab yàlla bi ne ko du yow waaye bañ bañ ko ne du yow tere terewut mu di ko wut ngir xam njëriñ li di ko wut ngir jëriñu ci moom nee na moom bi koy wut war nañ ko ne ko kooku abul abbas lañ koy dàkkantalee fas lañ koy rob dégg atum junne ak téeméer ak juróom fukk gannaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay lay judd ku bëri tamit lu ñuy euh, dingat la dégg nga yim wax yëpp muy xarnu fukk ak ñaar bi nga xam ne moom lay juddu ci ama naqshin wala ama euh, qanashin mu Sidi Ahmed Tidiane wala ama chanaqin Sidi Ahmed Tidiane yi rek moo ci moo ci judd judd Abul Abbas ñu denc ko faas dégg nga euh, li lim am tamit ci inkaar amul benn waliyu yàlla bu ko am kon maqaama moomu nga xam ne moom mooy xatmiyatu du maqaama moo xam ne ni lu ñuy ndamoo la wala lu ñuy nangamee la mais yàlla moo koy jagleel dégg nga ku ko neex eh, moo tax ñu koy wax alqutbul maktum di ko wax albarzaxul maxtum maxtum mooy intermédiaire bi nekk ci diggante nubuwatu ak wilaayatu ba ku jotati ci wilaayatu dara moo la ko jox alkatmiyatu nag dégg nga moom mooy la muy fa muy jëlee ci wàll ga muy jëlee ci yonentu sallallahu alayhi wasallam nga xam ne kenn amu ca accès yàlla rek ak yonentu sallallahu alayhi wasallam ñoo ko xam moo tax mu ne al maktum huwa alwasitatu bayna al anbiya alayhim salatu wasalaam wal awliya ndax awliya yi mënuñoo jëlandoor mënuñoo jël leeru yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul an anbiyaaw yi nekk seen diggante ndax leer gi dafa tàng dégg nga waaye anbiyaaw yi tamit seen leer dafa tàng ba il faut que mu am ku dox seen diggante ak awliyaaw yi pour mën a téye la ca warta agsi dégg nga ba du agsi maqaama mi nga xam ne nag Sidi Ahmed Tidiane yegg na ko ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi koy xamee ci Sidi Ahmed Tidiane bés bi mu laajee yonantu ba muy xuus muhammadiya yonantu te loolu mooy xatmiyatu bi ni nga xamee ne yonantu sallallahu alayhi wasallam dafa am xaqiqa xam ne kenn xamu ko fa yàlla rek ko fa xam foofu la ko Sidi Ahmad Tidiane wuutoo ci katmiyatu waaye xatmiyatu Sidi Ahmad Tidiane mu ngi fa wuutu yonantu sallallahu alayhi wasallam ci xaqiqatu muhammadiya nga xam ne ku xam ci moom dara ci côté bopp nga ci xam dégg nga nag xaqiqatu muhammadiya nag ñu bëri donte seenu leer leeram mooy bopp mooy dotteeku ci ñun ñëpp awliyaaw yu bëri amuñ ci accès Sidi Abu Yazid al Bustami nee na dégg nga lu mat juróom lu mat dégg nga diir bu yàgg nekk na di ko wut di sàkku dégg nga jot xaqiqal muhammadiya mu ne waaye juróom ñaar fukki junne dégg nga xijaabu leer ñoo nekk ci digganteem nga xam ne bu mu ci traversé rek lakk kom kawar yonentu nag sallallahu alayhi wa sallam dugal na ci Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu ba mu jot lépp ba mu xam lépp ci xaqiqatul muhammadiya ba Sidi Ahmed Tidiane yi nekkee ci buyur leer yi ak tajalli yi ak tàngaay bi mu laaj ko ne ko kan moo gën a màgg dégg nga ci sa awliyaaw yi ci awliyaaw yi mu ne ko ci ñi nga xam ne passé nañu mu ne ko ah, sida arab ah, ah, Muhammad ibn Arabi al-Hatimi ak mu ne ko ndax am na ko mosa a yegg si fii mu ne ko ah diw de ñëw na ba ci ushur bi maanaam boo xaajee ma xamee fukk benn ba waaye leer yi dégg nga bari leer yi tàng mënul dem waaye ñaari sëriñ yi ma nag ñoom ñëw nañ ba boo xaajee maqaama bi ñaar ñu ci digg ba mu ne ko fi waaye fii nag mu ne ko yow nag fi nga yegg si nii dégg nga kenn mosu fa yegg si ndax géeju mbootu Sidi Ahmad Tijaani dem na ba taq ak géeju mbootu Sidi rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam ndax Sidi Ahmad Tijaani am na ci yonent bi mashrab boo xam ne nii moom moo ko jagoo dégg nga am ci yonent bi mashrab boo xam ne it daf ko bokk ak al anbiyaa alayhimu salaatu wassalaam dégg nga maqaama mii di xatmul euh, awliyaa yi mooy maqaama bi nga xam ne bu moom jot na ci wilaayatul fu kenn du yegg firiwul ne gannaawam wali yu dootul ñëwati déedéet li muy firi mooy moo tëj wilaya gu spécifique gu gi wilaya biir gi waaye jot na ci wilayatu it loo xam ne kenn dootu ko jot bal moom mooy jëmmi wilayatu sax ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam xam nga ne moom mooy jëmmi nu bu wëtu kum nampal boo génnee nabiyu nga war a doon waaye Sidi Ahmed Tidiane yonentu nampal na ko mu génne nekk waliyu lu tax ndax dafa génnee wilaayatu ci nu nubuwatu daal di ko ko jox ngir mu mën a nampal waliyu yi gis nga benn euh, euh, kilifa gu baax mi ngi koy misaal mu ne mu ngi mel ni géej ñun ñëpp buñ fa naanee ndox mu xo saf xorom lañuy naan ba mu des jën mi nga xam ne moom ci biir géej la dëkk moom am na dégg nga taw boo xam ne taw naysaan la tudd semaine lay taw ci at mi ñoom jën yi dugg ci dëkk ci géej gi bu ñu bëggee naan foofu la ñuy dem moo tax ñoom duñ naan ndax mu saf ndox mu saf ndox mu naan lañ mu mu neex la ñu naan moo tax Sidi Ahmed Tidiane yi yonentu nandal ko ba pare te nandalul ko ak yonentu daf ko nandal ak wilayatu muy sainteté wala sainthood ngir moo war a nekk jëmmi wilayatu pour mën a euh, tëbb yeneen wàllu yi léegi nag moo tax nga xam ne kon euh, ñun suñu yittee ci si euh, wirde wi mooy li Sidi Abdoulaye Waladul waxoon ne dégg nga li nga xam ne moom mooy alxarat ci tariqa bi alxarat ci wirde wi mooy fóon alxaqiqatul muhammadiya ndax Sidi Ahmad Tijaan radiyallaahu anhu kat xuus na xaqiqatul muhammadiya yegg ca foo xam ne kenn yeggu fa ci awliyaa yi te nag moom waxoon na ne sama dégg nga nen mu ngi junne junney waliyu mooy sama taalibe ngi tolloog junney waliyu dégg nga Sidi Aboubacar si daal di ko woy ne ko kon dégg nga cuuj ba moom noo koy misaale cuuj ba mooy taalibe bi nga xam ne xam na xam na yàlla moo tax taalibe Sidi Ahmed Tidiane bi radiallahu taala anhu mook awliya yi nga xam ne ñu ngi ci jamono ñu fonk leen lool bëgg leen lool sopp leen lool màggal leen lool ñoo bokk sëriñ moo tax ñu ne la kon boo xasee jël tariqa dootoo ziyaareti ndax ki nga bokkal naanuwaay doo ko naan doo ko ñaan kook da ngay ànd ak moom dem ca naanuwaay bu mag ba muy Sidi Ahmed Tidiane radiallahu tabaraka wa taala anhu dégg nga bu fekkee nag chammul xaqiqatil muy fóon mbootam yonent bi muy xaqiqaam moo ñu tax a jóg sidna sidi cheikh loolu la ñu indil kon fuñ toll dañoo war a góorgóorlu ci astaghfirullahi dégg nga salaatu ala nabi laa ilaha illallahi suba ak ngoon te sarta ba nag mooy lan di julli ci julli julli mbooloo ànd ak sarta ya buñ ko mënul ñu julli waaye fexe ba defee ko nañ ko war a defee di wasifa it ci ci mbooloo topp alquran topp sunna ndax yonente sallallahu alayhi salaam nee na moom la ñu bàyyeel duñu réer mukk tànk ñu ngi ci eh, ñaar yooyu looloo tax tariqa bi am qaabiliyatu ndax dafa delloo nit ñi ca cosaan mooy la yonente sallallahu alayhi wasallam ak yonente yi ak saxaaba yi nekkoon lu jiitu tariqa Sidi Ahmed Tidiane nit daan na topp àll bi di dox di xiif di mar di nangam ngir lan ngir am maarifatu billahi tabaraka wa taala yonentu nag leemal yoon wi Sidi Ahmed Tidiane ngir ñëw nañ ci mujjug jamono te mujjug jamono xarnu bi mu ñëw dafa niroog xarnu ba mu ñëwoon moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo tax lii fi delluwaat ci cosaan nga xam ne lépp looy wërde ci tariqa bi mi ngi dellu ci alquran astaghfiru istaghfirullah muy istaghfiru rabbakum julli ci yonente bi inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi laa ilaha illa allah yàlla mu ne faalam annahu laa ilaha illa allah amul tariqa bi lu dul boo xoolee alquran fekk ko ca waaye nag xususiyatu bi nga xam ne ma ci am mooy ndigal ndax mbir lu am am njëriñ boo ci amee ndigal dafay tax njëriñ la gën a yaatu moo tax ndigal li ci am moo tax ngay def euh, fukki fan mbaa fukki weer mbaa nangam rek sa xol ubbeeku ngay jot ci maarif yi ngay jot ci anwaar yi ngay jot ci asraar loo xam ne nit daan na def fanweeri at du jot loolu yàlla def na ko ci tariqa bi yàlla def na ko ci moolaay sidi ahmad atijaani radiallahu taala anhu moo tax mu ne taabiuna yaglibu ala kulli taabiin wala yaglibu alayhi taabi imam hasan siise mu ne nag tariqa bi ni mel nii moo tax mu am qaabiliya lil intichar moo tax maanaam dafa mën a tasaaroo lu tax parce que dafa yomb al ajjuma bii passé rek am na benn kilifa boo xam ne ci euh, waa kër sidi mouhamad euh, waa kër sidi abul hasan achaduli la bokk dëkk fii ci Staten Island dégg nga nekkoon ci tariqa chadiliya bi nga xam ne moom mooy sëriñu euh, euh, dégg nga euh, sëriñu sëriñu imam Busiri ndax imam Chadili nga ak màggaayam nga xam ne mooy taalibe Abdusalaam ibn Machis bi nga xam ne Sidi Ahmed Tidiane daan na tere sax ku taalal sa tànk jëmale ci xabroom Abul Hasan Achadili mi nga xam ne mooy sëriñu Abul Abbas al Mursi mi nga xam ne nee na ñeent fukki at a ngi nii fàdduwut ma tarfatul ayni su ma fàdduwoon tarfatul ayni jàpp ne jullit la abul abbas boobu nga xam ne mooy sëriñ imam busiri mi ngeen xam mi taalif burdak samsiya di sëriñu ibnu atailaay sakandari mi taalif dégg alxikam bi nga xam ne sidi ahmad tijaani wax na ne bu beneen téere daganoon na jullee bu alxuraan xikam lay doon te mu daan jàngale ajjuma ji weesu koo xam ne sëtam la jël na fii tariqa sidi ahmad tijaani radiallahu taala anhu ji loolu nag xoolal kooku fa mu jógee ak tarixa ba mu nekkoon na mu màggee waaye yàlla wan ko mbootum eh, tarixa Sidi Ahmed Tidiane te noonu nga koy gisee fu nekk boo demee tey Indonésie kat mi yëba ñu ngi ko fay màggal ñoom Sidi Mouhamadul Habib waa kër Sidi Ahmed Tidiane yëpp ñoo ngi ko fa fees dell ay junne junne foo nem ci àdduna bi France ñu ngi ñu koy wax semaine bii di ñëw fii dégg nga fu nekk def nañ fa kat mi àdduna bi yëpp dégg nga lii Sidi Aboubacar si naan ammat mazayaahu bal daarat zawayaahu kookoy Mawlaay Sidi Ahmed Tidiane yal nañu ko yàlla uh, fayal ñu ngi jéggalu dafa mel ni xaw nañoo xaabaabal wante tabaarakallahu uh, mawdu bi moo mel noonu kon nag mu ngi noonu ci xatmiya Sidi Ahmed Tidiane fa mu toll ci wilaaya la fa kenn tolluwul bu dee katmiyatu nag mooy nëbbu gi nga xam ne yàlla nëbbu na ko ku dul yàlla ko yonentam hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yal nañu yàlla jëriñ ci yàlla jëriñ ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam jëriñ ci Sidi Ahmad Tijaani jëriñ ci tariqaam jëriñ ci suñ njaboot jëriñ ci àdduna jëriñ ci àllaaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilah jazaakallah xayran yaay maam mhm. xam Euh, alhamdulilah te lii lañ doon séntu ci yow. Mhm. wax dëgg yàlla xamoon nañ ne trente minutes moom mënut ci xëcc. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. xamoon nañ ko moo taxit nag euh, wax dëgg yàlla euh, ñu ngi jéggalu waa groupe bi. Mhm. waaye dama gis ne sax kenn génn yaa imaam. kenn génn di la déglu. ak bon nag mu mel ni Cheikh la ñor. ah ponkal yi am ci Sénégal ngeen di joon mhm. ñu ko commencé Guinée Mali mhm. ba dëkk yooyu yëpp mhm. kuñ topp kenn ku ci nekk mënoon ngay demal sa bopp sa tarixa waaye ñëpp ku ci nekk gis ne Cheikh Tidiane nii li ko maamam jox doy na ko kon nag kooku nag boo ci wax ñun xam nañ ne. Mhm. wax ci du nekk lu ndaw. Mhm. moo tax it dañ la dañ la njëkk a ñaanal. Mhm. balaa ñu lay jox. alhamdulilah alhamdulilah euh, pour yàlla may la fasa may la xabul may la lijaaba tamit. Mm, xam nga alhamdulilah. Euh, ndëg ki ngay waxal. moom moo moom moo tuutiwul. kon nag euh, imaam. jërëjëf di wax mbooloo mi tamit ne waxam nañu lu ñu xamul. Euh, dañ bugg a bugg tëkkutal rek. Mhm. waaye am na kooku ñu doon wax imaam wax na ko ci leeral na ko ci waxam. Mhm. Euh, ne euh, Cheikh na Tidiane daf daan soppi xaalis maanaam daf daan. Mhm. wecc xaalis ci anam boobu waaye ci biir waxtaanam. moo tax jarul ma laaj ko leeral na ko. bon kooku ngeen di déglu. bugguma tuddee sax turam. ñu koy wax ci internet beeg Facebook bi ne Cheikh Tidiane. doon. christian la woon nag <laughs> mhm. wéccikati xaalis la woon nag mhm. bon gannaaw di mhm. imaam leeral na ko bon duma ko ko laajaat ñu koy gërëm di ko sant yal na yàlla fayal ñu ñu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu ndik lépp loo bëgg ci tariqa bi salaatul fatiha xanaa yow mu ñeme ñu teg toog waaye boo ñemeñee toog rek mën nga mën nga koy am léppam ci salaatul fatiha alhamdulilah kon nag dinaa gis nit ñi léegi-léegi ñu lay ñaanal ne ci barke salaatul fatiha waaye xamuñ luy salaatul fatiha xamuñ kuy salaatul fatiha Cheikh Ahmed Tidiane mii nag ñii ñii ñaan ci barke Cheikh Ahmed Tidiane salaatul fatiha Cheikh mii salaatul faatiha mhm. bi imaam teg na ko mhm. euh, euh, képp ku bugg a déglu di nga dégg mhm. jërëjëf yaa imaam ñu am mbégte ak kontaante ci yow di la bàyyi nga tëj jotaay bi ak ñaan ñaanal nit ñi ñaanal suñu réew yoon tamit yaa imaam yàlla def fa jàmm ñun amul dara lu suñu réew yi mm-hmm. wala yàlla yàlla def jàmm tamit ci réew mi mm-hmm. yàlla def jàmm tamit ci groupe bi mm-hmm. ñu bëgg a yàlla fi nekk imaam ñu bëgg a yàlla ñeneenti at ñi ngi ànd ci nii yow yàgg nañ la fi o ooyaar la fi ooyaar la te ni di seen people rek la nga ñaanal leen yàlla yàlla defal leen tawfiix imaam bismillah ñu bàyyi la jotaay bi nga tëj ko salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh xam naa ne ki nga wax noonu am nañ show boo xam ne defoon nañ ko ci danañ la yónnee lien bi ngir kii wax loolu ah. eh, danañ ñi bëgg a déglu danañ danañ dégg danañ xam ne la muy wax tegut ko ci xam-xam te ci ay kàcc la ko teg te tamit def nañ ci sax xasida boo xam ne ba mu waxee ne Cheikh na Tidiane daf daan soppi xaalis ma ne Cheikh na Tidiane romb na fu muy soppee xaalis ndax ab daal yi nga xam ne ku ca dee yàlla soppi la kenn ngay keneen ci badal ci wali yooyu Cheikh Tidiane moom mooy seen sang ah, ramaytahu bi sixri wal ibdaali haashaahu minhu madadul abdaali ki nga xam ne nag wali yu am may ci moom la jógee kooku soxla woo soppi xaalis waaye nag la ko tiital mooy xam nga Cheikh Tidiane bàyyi mbànd ñaar téeméeri borom kër ak juróom fukk la daan dundal bés bu nekk waaw ah, kooku kooku Sidi xam nga eh, fi may tëjee rek mooy yàlla ci suñ borom yàlla suñ borom lépp lu dul yàlla am ki daf ko may yonent yàlla Muhammad waaw lu dul yàlla la yonent bi sañ na ko wax moo tax bu siri ne dama daatu nasara fi nabiyihimu waxkum bi ma chita madhan fiihi waxtakime yaa ngi dégg bu ko defee yonentu salaay salaam yàlla may ko lépp du yàllaam gi muy xalifaab yàlla ci fépp nag waaye yonent yi dafa tëbbu Cheikh léppam lu dul nubuwatu gi koo xam ne nag yonent mi yàlla tëbbu léppam lu dul yàllaam gi moo la tëbbu léppam lu dul nubuwatu lu dul yonentam gi kooku ah, duñ duñ toog buñ ciy wax waxuñ ngir ne mbër lañ amee déedéet ñun soxlawuñ mbër soxlawuñ ko dañ koy wax ngir ne mbir boo ko xamee pour nga jëriñu ci foog nga xam ko te li nga wax noonu tarbiya sidi alhaaj ibrahim ñes dafa ne at tarbiyatu indana bi himmati cheikh tidiane tarbiya ci ñun sax ci himmatu cheikh tidiane la te tarbiya kat salaatul fatiha rek la cheikh tidiane nee na boo toogoon jamono sëriñ bu mat sëriñ amut sax nga takkoo salaatul fatiha fokk yàlla jàpp ci sa loxo xamal la boppam mbaa mu wan la ak yonent mbaa mu wan la ak aji mat ji jamono Eh, may yàlla ñu def fatiha salaatal fatihi eh, dégg nga ñaan yàlla lim nattoo ñooñu nga xam ne eh, dii nga nitu yàlla ta jaral na leen jaral na leen wax lu dul dëgg ak sos lim leen nattoo yàlla bu ñu leen nattoo benn waaye daf may wax ne ma diw de li muy wax nitu yàlla yi dana torox ma ne ko kon xamuloo luy torox de pour ñun torox mooy ñàkk xaalis wala feebar wala gàtt fan loolu torox de mën naa am sax torox dana nekk loolu waaye du loolu mooy torox de torox gi gën a rëy ci torox yi mooy yàlla xañ la boppam soril la boppam ba mënoo bëgg waayam waaw kii yàlla xañ boppam soril ko boppam ba mënu la bëgg waay gisuloo yàlla ne kallaa innahum an rabbihim yawma idin ha la mahjubuuna hmm. summa innahum la saalul jaxiim yi yàlla nee na ñoom ñëpp bu keroog yàlla fa leen di yër boppam moo tax ñoom ñëpp jahannama la jaxiim lañ jëm ah yàlla bu la yiiree boppam rek sorox nga yàlla bu yàlla yiir boppam ñooñu yàlla daf leen a yiir boppam mooy mënuñoo gis yàlla te ku mënta gis yàlla nag doo gis waayu yàlla mënuñoo gis mbaaxu yàlla ci waayu yàlla ndax yàllaa leen yiir boppam waaw Ibn Ataay laay nee na azab boo gis rek ci xijaab la jógee xijaab mooy mbugal mi gën a mag mooy kiiraay waaw yàlla boo demoon seeti kilifa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 yaa aliman bil altaaf najjina mimma naxaaf Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu dafa am benn waay bu jàngee faas jàngee kenn ci taalibe Cheikh Tidiane yi booba Cheikh a ngi dund sax waaye booba jàppul moom ci Cheikh nee na ba muy ñibbi nag góor ga ne ko bés demati ba jamono naqadi mbaa nga am soxla way ñaan yàlla nanga nga def istixaasa ci kii mu joxoñ ko Sidi Ahmed Tidiane yi joxoñ ko këram waa nee na yàlla di def at yi di dem bëj bës ñu dugg ci gaal di tukki ngelaw li fekk leen fa daal di écraser seen gaal gi moom ak yeneen i nit ñoo xam ne juróom-ñaar lañ ñu nekk ci benn alluwaay gaal gi wenn xottu gaal gi di xaar dee dikk nee na foofu rek xelam daj ci la ko góor ga waxoon nee na bi sama xel dajee lool rek ma def istixaasatu ci Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nee na mu mel ni nga ngëm mi daf ma jàpp ma commencé nelaw rekk Sidi Ahmed Tidiane ñëw ne ma ni pëkk-pëkkal ma ne ma waxal yaa aliman bil altaaf najjina mimma naxaaf yaa aliman yow mi nga xam ne yaay aji xam bil altaaf ci lutf ci ñeewant yi yaa latifu yaa aliman bil altaaf yow mi nga xam ne yaa am ñeewant ya xam ñeewant yi yaay xamaakoonu ñeewant yi najjinaa yàlla na nga musal ñu mimma naxaaf ci li ñuy ragal nee na fi may waxee loolu rek mu mel ni benn bato moo feeñ ci benn bato feeñ ci suñ kanam ñun ñëpp ñu dugg ci mu yóbbu ñu ba ca tefes ga nee na ba ma ñibbee yàlla dimbale ma ma dem faas laajte ba ma leen nettalee li xew ndeko bés boobu mooy bi fi Sidi Ahmed Tidiane jógee ci àdduna ba mu des ba mu nekk ba muy juróom-ñaari fan mooy juróom-ñaareelu fanu génnu àdduna ak Sidi Ahmed Tidiane yaa aliman bil altaaf jinaa mimma naxaaf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf. Muntaxa Sakho nit ku baax la macha allah ku bëgg yonent bi la mu ngi ci liggéey di yóbbu nit ñi sa ci aj màkkatal mukarama di umra saa yu nekk képp ku bëgg a dem umra ñu ngay imam Muntaxa uh, wax nañ ma ne ma soo ànd ak moom loo xamut diggante màkka Medina ci yoo la def dina la leeralal dina la xamal dina la jàppale ba nga xam sa aj bu baax a baax a baax kon nag mbooloo mi kooku la lépp dafa am benn waay bu ñuy wax alaaji naka njaay imaam mhm. yàlla na ko yàlla yërëm gaañu na mhm. gaañu na ci fan yi mhm. ne dafa demoon Guinée fekk fa dem seet ci benn taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim benn sirif fa nekk mu ne sirif bi bàyyi may na ko doomam sax mhm. mu ne dëkk bu ñu wax saku la mhm. saku mhm. la ko wax waaw mu ne dafay dugg xalwa rek sirif bi alaaji nata njaay mii mu ne ba ñëwee toog mu gis taalibe yi ku ñëw bu ko koy gis doo ko mën a gis ndek mu ngi dugg xalwa tey am na ñoo xam ne da ne loolu Euh, xanaa bokkaale la mhm. ñoom buñ gisul sirif bi rek mhm. dañuy jël seen addiya teg ko fa mhm. xool nataali bàyyi rek ñaan fa rek ñaan seen soxla seen aajo fajo na rek ñu dellu mu ne ñooñu noonu lañ jeexee jeex nag ci jaan loolu lañ gis ñoom ñu ne bàyyi moom lañ gis ñi ñi ngi gis Cheikh Tidiane ci biir Baye Niass moo tax nataal boobu lay ñu xool rek ñaan seen soxla rek génn dem waaw waaw waaw loolu tawasul la barxaam Diop mhm. man man mhm. waaw ma waxtaan moom ma mhm. ko barxaam léegi léegi ma tiit na ko baal ma àq sax li laaj mu ne ma ee eh, bul waxati loolu da may laaj soo buggee xam ma ne ko barxaam li nit ñuy doxee Nigeria bay ñëw ba ndax lii am na mu ne ma li ñuy gis yow doo ko mën a gis yow bi nekk fii dëgg la dëgg la mu ne ma ñooñu seen takku lu ñu takku dëggu mhm. tax ñuy war ay mbaam mhm. ak i saag ak ak di dawal di pedal di yuuxu di sikka di tudd yàlla mhm. mu ne ma yow jege kiiraay la dëgg la dëgg la ngay ne xam moo tax li wax doo ko gis dëgg la mu ne su fekkoon ne Seexu rek la Seexu Tijaan na Nigeria mu nga Guinée mu ngi Mali waaye mu ne ma li xew mooy yow lu la jege nii lum la jege jege jege da koy romb. doo mhm. koy doo ko fonk. dëgg moo tax Nigérian si daan dox 2010 nga gis euh, ba ñuy ubbi jumaa ji thousand of thousand yooyu doon yuuxoon Nigeria ba Sénégal bi kii kat di egg si. Mhm. mu ne ma gis yow doo ko gis de. Mhm. te bu leen maanaam li macha allah waaw. ku mel ni ku mel ni suñ góori yàlla yiñ am. ku mel ni Cheikh Omar Foutiyou Tall mhm. ku mel ni alaaji Abdoulaye Niass mhm. ku mel ni alaaji Malick mhm. ku mel ni ku mel ni tudd leen bañ jeex demal ba maam Maska ah daa génnal boo boo génnal foofu sax génnal foofu ma ne génnal foofu sax dem Tunisie de tudd nañ léegi Sidi Sidi Sidi Sidi Rayaahi booba moom la buur bi daan yónni ci buuru Maroc moo ëppoon xam-xam ci Tunisie dégg nga dennal foofu dem dennal foofu dem Algérie Sidi Ali Tamasin Tamasin yi booba nit ñi dañ daan dox Algérie ak boobu di dem di seeti Sidi Ahmed Tidiane yi moom mu ko daan dox ñetti jéego Sidi Ahmed Tidiane tere ko ko gis nga boo déggee affaire photo boobu nit mën naa nit mën naa ñëw ne la bokkaale la fekk bu fekkee da nga ne photo bi may ma boobu lay nekk bokkaale waaye boo ñaanee yàlla ci barke borom foto bi kooku tawasul la te ni te te te te te nit ñi xam nañ loolu macha allah macha allah macha allah. waaw Imaam beneen yoon beneen yoon beneen yoon. <laughs> incha allah. Cherif wallaahi ak ya xew ak ya xew. waaw ya xew kees ga kees kees ga de kees ga de nit dañ ko séddoo kees ga dañ ko séddoo de. datt dañ ko teg eh, ga waaw dañ ko séddoo de dañ ko séddoo de. nga séddoo te loolu nag ci sa ci saxaaba yi lañ ko royee saxaaba yi yonentu sallallahu alayhi wasallam mosto watu karawam laal suuf karawam yëpp dañ koy séddoo bu watuwaat su jàppaan ba pare dañuy dañuy dañuy xëccoo ndox desum jàpp mi pour pour barkelu ci ah, ah, loolu loolu loolu loolu sunna la loolay barkelu loolu sunna la loolu sunna la loolu sunna la ak karamaat yi Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane moom mu ngi noonu yal nañu ko yàlla fayal daal <laughs> yal nañu ko yàlla fayal te njëriñu ci wallahi alhamdulilah wallahi alhamdulilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf